Hallo, mein Name ist Daniel Caterwell. Ich spiele bei Greuther Fürth, habe die Nummer 10, bin Mittelstürmer. Meine Mutter kommt aus Korsika und mein Vater aus Senegal. Ja, ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen tey nag découverte bi may andi du comme sama yeneen découverte yi euh, dama doon gëstu si ay business naw yu bëri bu may def gëstu nag ma découvrir benn joueur bu xamante ne xamoon naa ko mais xamoon réellement histoire mu nekk benn joueur boo xam ne moo nekk deuxième division. Euh, Allemagne Bundesliga mais histoire dama ne dinaa ko partager donte nag mënu mu wax lépp mais dama koy jéem a tënk rek di si ñaax sax jeunes yu bëri ñu dem lire ko wala képp ko xamante ne voilà boo liiree histoire am di si jàng lu bëri ndax nekk na joueur bu xamante ne euh, dafa jaar prison ba ni mu nekkee léegi professionnel di dugal ay but jamono bii nag moo ngi am 31 ans moom nag bindu sunu sénégalais la donc moom papaam mooy sénégalais yaayam mooy français d'ailleurs sax bu ko neexoon sax dafa teel dem maintenant nag euh, histoire am bu ñu ko wax dañu naan papam waykat la yaayam euh, Corse la dëkk si benn France moo tax yaayam sax dégg na italien mais ñoom ñoo teel a dem Allemagne nekk jour bu xamante ne franchement histoire am boo ko liiree di ci jàng lu bëree bëri moom mu tax ma ne dañ ciy jàng lu bëree bëri mooy que boo gisee Allemagne li muy rëy yëpp Allemagne li fa ay jour yu bëri jaar yëpp moom mooy deuxième joueur bi xamante ne jaar na si euh, prison nekk professionnel. moo tax ma ne ma def gëstu ma lire livre am parce que livre am c'est moo tax ma ne man ma ko def ci benn vidéo c'est c'est compliqué dañ koy jéem tënk rek euh, pour voilà képp ku xamante ne xamoo woon histoire bi à travers vidéo bi may def nii nga xam si tuuti euh, pour ñeneen ñi tamit buñ ñu mënee dem euh, lire wala dem seetaan ay interview parce que français franchement def nañ ci moom ay article et tout def na tamit ay émission voilà moo tax histoire bi man bi ma ko lire intéressé ma loolu moom nag euh, comme ni ma leen ko waxee bi mu nekkee jeune nag dañ dem Allemagne bi demee Allemagne si jamono boobu moom mu ngi naan ay xaritam balaak lañu ñu faan waaye moom Zidane dama sa faan xam nga boo gisee équipe bu mu nekk nii actuellement voilà à chaque fois moom 10 lay takk parce que Zidane Moussa Fan euh, si génération boobu la bokk bi mu nekkee xale nag euh, danaa dem ci mbeddi Allemagne si benn dëkk bu xamante ne ban banlieue la si Allemagne comme Pikine ni mu mel fii wala Guédiawaye euh, du du comme dëkk yi gën a kii ñi ëpp xaalis si si Allemagne léegi moom danaa ñëw di fontoog mag ñi mais buy fontoog mag ñi ay xaritam bu ñëwee ci mag ñi dañuy dàq ñu ba mu des moom parce que moom dafa nekkoon xale la woon huit ans la mais dafa mas a am caractère si mën a football Euh, mag ñëpp fan que naa waa mais xale bi à chaque fois dañ koy xëcc ko pour mu ñëw bokk seen équipe et tout ñuy football ci mbedd yi moo tax à chaque fois di naan foofu ci Allemagne mbedd boo si mënee football léegi comme suñu dëkk yi rek mooy boo si mënee football léegi mën nga football quoi donc bés bu ñu la tegee si gason looy def euh, naka noon nag moom doon jàng bi muy jàng nag ñu ngi naan euh, moom nee na ëppris la gënoon a aay moo tax xam comme tubaab bi ñoom dañuy boo gisee seen i Euh, da ngay mën a def sport man ko continuer pourquoi pas nga nga nekk si professionnel moo tax moom dafa doon def football ñëpp xam na kii dafa am talent léegi moom mos na def euh, moo xool à l'âge de 12 ans la wax 13 ans def na ay détection ay essais bi mu defee essais ñu jël ko. xam bu ñu ko jëlee ne jël ñu xaalis te mu mu mu bàyyi parce que moom dafa nekk nit ko xamante dafa am caractère gëm boppam gëm na day doon professionnel daf may fàttali un peu euh, histoire Ibrahima mu euh, def foofu test ñu nekk kaay defaat test man man mu dinaa football feneen noonu la oññee koo bàyyi Londres ñibbisee euh, dëkkam pour mu dire que moom dafa mës gëm boppam esprit boobu la yor moom dafa jàpp ne garaaw bu ñu ko jëlul garaaw ay xaritam dafa bëgg a toog koñoom di gis ay copain moo tax bëggul mësul bëgg a il a fallu Mönchengladbach ñëw xam Mönchengladbach xam nga ko bu baax parce que instant yi moo ngi euh, Bundesliga kii nga bëggoon jënd naka yow mais yow euh, mën naa la mën yow mi talent bi nga am ni ak ni mu la gisee nii mën nga am xaalis bu bu jeex sa yaay bi xamante ne moom rek nga bëgg mën nga ko defal ay kër yi kër say xarit yi mën nga mën nga leen defal lu nekk ngay toog ci koñ bi si si gox bi ban njëriñ la amoon nga toog banlieue bi mu ne kooku moo ko convaincre mu def stagiaire dem foofu contrat stagiaire dem Mönchengladbach xam voilà mu gis terrain installation yi mais à chaque fois moom da doon namm koñam da doon namm koñam xam moo tax day bëgg di ñëw ak koñam te loolu club yi dañuy tere loolu parce que yow boo demee foofu mën nga blessé mën di xam da nga leen di yàqal quoi mais moom dafa dëgëroon boobu du coup mu ñëwaat ci koñam pour jouer fa tu ay tournois yi fa doon def. muy joué ay tournois joué ay tournoi ba ñàkk final bi final bi sax xeex na fa pour vous dire que moom voilà dafa euh, ko ñoom da ko jaral lu nekk tey ji bu ñu ko doon jël exemple pour ñeneen ñi mën a comprendre c' est comme si nga dem Europe di football nga ñëw fii nawetaan di football c' est comme ça comme si nga signoon benn club euh, Europe nga ñëw nawetaan parce que da nga for euh, sa gox moom nag dañ ko doon ñooñu dañ doon bañ lool mais moom mu bañ na day toog ko ñoom day football foofu ñooñu finalement mënatul toog euh, monsieur Ngalaba mu ñëw koñam parce que koñam euh, am na am na benn dëkk bu xamante am na benn équipe club bu xamante ne mu ngi doon si si petit kër si kii niveau yu ndaw yi maanaam nekkuñu Bundesliga 1 nekkuñu Bundesliga 2 mais mën nga koy jël comme CFA moom nag mu ne day leen di xeexal pour ñu bañ a gën a wàcc xam parce que moom goxam mooy lépp du coup nag équipe boobu dafa mujj a wàcc bi wàccee nag. xaritam euh, benn bi signé contrat dem feneen moom nag mu dem ba am frustration euh, comme que gox boobu dama mu am commencé am benn âge bi 17 ans affaire yooyu noonu euh, ñi nekk gan si boobu ñu mu daan fréquenté ay ñu xamante ñoo ko ma pour naka kaay braquage kaay sàcc kaay def lii boo ñëwee ci ñun ñi mën nga am xaalis ñu mu ne man baa duma rey kenn baa duma def gars yi ne ko non non fi doo rey kenn doo lii doo tiire kenn yow duñu la jox sax armée yow ñuy xoolal la yow dañuy gumbe rek ñu dem baraak ay ay ay magasin ay affaire yooyu noonu mu dem ànd ak ñoom bu mu demee ànd ak ñoom nag euh, mu def loolu affaire bi réussir xam lu mu defee mu réussir mu jóge mu tiit ne lii mën mu ko continuer parce que man am na lu ma man mooy talent am naa ko football laa gën a bëgg te à chaque fois mu lu muy frustré lu muy mer yëpp à chaque fois que mu football rek day fàtte loolu yëpp léegi mu ne naa jóge si ñoon xam bu mu bëggee jóge si ñoon nag ñoo ni xam ko woo jël kaay jël pistolet menacé ko naka yow da nga dof xanaa boo boo boo ñu bàyyi dañuy rey sa copine sa maanaam sa gel dañuy rey euh, say sa say yaay dañuy rey say xarit ak yooyu fii mënoo fi jógee mu continuer di ànd ak ñoom di baraake di sàcce di def loolu ba un jour mu ne man damay mu ne day changer club jox gox day jóge gox bi mu nekk changer beneen club parce que moom talent am kenn du ko laam-laamee léegi bi mu defee loolu noonu mu ne day bëgg def loolu xam nga si lañ policiers yi jàpp ko policiers yi bu ko jàpp moom jàppoon na ne comme que jeune la gars yi dinañ ko bàyyi xam nga bu jox bu joxee caution après caution juge la ko mais moom euh, euh, avocat am doon na def ay appel parce que xale la mais Allemagne foofu barakaat duñ ko jox cër parce que nga ñëw fekk nit ki liggéey li mu la liggéey nga baraka jël xale xaalisam loo nekk jeune mu la bàyyi noonu ñu tëj prison 5 ans.

mais mu naan kooku dama bëgg nekk professeur man dama mës a doon professeur te dama koy doon incha allah moo jógee fii kooku bi mu demee si directeur dama leen professionnel laay doon ñëpp ne ko yow da nga dof xam nga euh, li ko dimbali bokk na si ba génn xam ñu remplacé ko keneen beneen si ici boobu noonu la toog wax ak moom kooku gën a dal kooku na non kii may nekk benn liberté bu ndaw mais quand ngeen ko ngeen koy bàyyi mu dugg moom sax neen si biir prison bi si la papam gaañ c'est comme ak des mais moom lañ ko mënatoo woon yóbbu ko pour mu ñëw euh, lii mën kii bi gis papam bu ñu koy yóbbu moom neen fekkee nag ak benn xaritam sax si prison bi pour dire c'était compliqué pour moom mais neen kooku moo ko dimbali mu dem football si benn équipe cinquième division xaw ma la wax la nekk football fa bi mu fa footballee finalement quatre ans sax a def prison bi mu fi jógee ay solicita ay mu am ay sollicitation yu bëri football ay club football ay si euh, si niveau yu ndaw yi bu jaaree club bi bàyyi club bi dem si trois club def na nee na euh, premier jour Allemagne premier jour bi xamante ne mas na nekk prison Allemagne club bi mu nekkoon da ko pré pour accueillir mais dafa fekk mu joxoon kàddu beneen équipe xam ah, si la demee di football di football ba ni mu nekkee tey jii jamono bi deuxième division euh, Allemagne donc histoire mu nekk histoire bu xamante ne franchement ku nekk war na si mën a jàng xam na prison jommu kenn xam na boo amee benn talent ak loo mën a def gëmal sa bopp nekk ci même xaalis ñëwagul sax

gis-gis di leen jaajëfal di leen wax ba benn